sama xol sedd na su ma joxe woon micro yi sax doy na ndax mel na ni li ma bëggoon am naa ko man de lenn rek laay sàkku mooy nga am ndam sàkkuwuma leneen lu dul nga am ndam te lii ma gis adduna ñëpp seede na ni ndam la te wóor na ni ñun day yokk waaye ku ñeme dañ la dee ñun ñoo ànd ak sëñ Béthio ba mu def li mu def waaye laata loolu sang bi daf ñu jàngal yar ñu tarbiyee ñu tarxiyew tassiye ñu jaarale ñu fi nu war a jaar ñu xam li ñu war a xam taragaluñu te li gën a yéeme mooy ku dul tooñ papare pare ñeme te sëriñ bi dimbali nañu ba ñu ne duñu tooñ waaye loolee lépp bu ñu ko dëxëñee ay pàcc la mbir mi ba mbir mi daj lépp sëriñ Saaliw la kon suñu ay kàddu dañuy tàmbalee ci li ñu sëñ yare yaree tàmbali ci sëriñ Saaliw yam ci sëriñ Saaliw ñoo ngi santaat Serigne Saliou Mbacke bu wér a wér a wér wér di ci jël seede àdduna ci boole gim ñu boole ak jëmmi Sëñ Béthio ci jamono ñun loolee sunu cant ñun cantaakoon waaye sang bi li sabab siyaar bi du lenn lu dul jàqare gi ñu amoon ndax ñun ñëpp a tiitoon màggalug Serigne Touba gi ñu jóge ku la wax ak ku la waxul ñun ñii ñëpp toog amoon nañ njàqare ndax fas yéene gi ñu ko fas yéene woon a def te gisuñu sëñ Béthio ci jëmmam waaye sang bi nga defee ko ni ko defe dugg Touba def fa la nga fa def mu rafet zéro faute nga dalalaat si nu xel ku ci toogoon yaa ngi gën a toogaat ci toogaay bu gën a confortable ndax kat c'était pas évident ndax màggalu Touba ñun ñi yàgg ànd ak sëñ Béthio ñu xam fi sëñ Béthio ajoon màggal Touba mu mel ni ci diirub juróomi weer xaw ma juróom benn mu def secret ñu dëgmal màggal Touba sang bi buñ la ko waxee buñ la ko waxul ji jaaxle woon nañ ci fànn yépp nag ci jëf ji ci organisation bi ci rafetal gi ci lépp ci penc bi ci baas yi ci berde yi ci kër yi ci sañse yi ci njaboot gi ci lépp waaye sang bi nga defee ko ni ko defee ànd ko ak sa jëwriñ yi ko ak njaboot yi ànd ko ak sa rakk yu baax yi jàmbaar yi gaa yëpp ko kenn ku ci nekk def ko sa mbiru bopp ànd ko ak yow nga defee ko de manière désintéressée man la wóor wóor yàlla ni indi woo aw nag Dakar lépp nga joxe ko ni ko sëñ Béthio daan defee man loolu moo ma yóbbu ci àll moo loolu sabab cant gi loolu moo sabab siyaar bi ndax vous nous avez délivré stress bi ñuy yan woon da nga ñu cooy dimbali ba ñu mucc ci man de waxuma sama kàddu damay wax ci kàddu bokk taalibe yëpp ñun lu dul ànd ak yow di la jàppale di la taxaw ñun loolu waruñu ndax kat sëñ Béthio defal nañu lépp gore rek a ñu war ànd ak yow ngir jëmmi sëñ Béthio maa ngi waat ci màggug Serigne Saliou daray cër taxumaa jóg barki sëriñ Touba soxlawuma jëwrit soxlawuma universel soxlawuma leneen ndax loo ma def leneen lu dul ak taalibe damay déranger man awma jot barki sëriñ Touba waaye nag sama xol bi sëñ Béthio rek a ci ne sëñ Saal man man de bu man la na sa xel dal dinaa ànd ak yow de manière ngir jëmmi sëñ Béthio lu ma am dinaa ko bokk ak yow loo am joxal mbokk taalibe yi barki sëriñ Touba ndax sant naa te kàddu gi dina ci man moo ne ci ñëpp soyez rassurés ñun suñu cër mooy taxaw kenn ku ci nekk ci ñun ñuy ràngandoo di dalal sa xel parce que yombul waaye nag sëñ Béthio waajal na mbooloo mi barki sëriñ Touba ñoo ngi sant sëriñ Saliou bu wér a wér a doo ñu gis mukk ci looy tere doo ñu ci dégg yu ñàkk fayda yi ngay dégg ñun duñu ci bokk barki sëriñ Touba yow bi dalaa tànnal ba noppi sëñ Badio dalaa tànnal te ku ñëwit identique bi mbooloo mi am moom ngay copier wóoye la dem te ñëpp dinañ ñëw ndax sëñ Sall yaa njaboote ñëpp barki sëriñ Touba yow nii nga doxee sa melokaan bii nga mel sa yërmande ji sa tedd gi sa baax gii nga baax sa nangu digal gii nga nangu digal yow ku nu àndut ak yow jubul ku nanguta ànd ak yow jubul man propagande ma sëñ Béthio moo tax may wax lu dul sëñ Béthio lu sëñ Béthio nekkul bugguma soxlawuma waaye man wóor na ma ni dimbali ñëpp man la wóor man ay gaay nañ ko jàppale bu ñu ko xulool bu ñu ko xeexal nañ koy rafetalal ndax moom day rafetal ñun suñu liggéeyal sëñ Béthio ci yow mooy di la dimbali ba lépp lu rafet loo koy defal lépp loo xamante nii bu yegsee lu ñaawlo fii ci kër gi ñu sànni ko ca àll ba ca àll ba dama ne gars yi maa yor kàddu gi nag ku bëgg a wax nga ñëw jël sa kàddu bu kenn copier samay wax man taalibe sëñ Béthio laa ku dul sëñ Béthio man ku dul sëñ Béthio taluma la dama ne bu kenn copier samay wax man sëñ Saliou Thiour laay waxal suñu ànd ak moom ni ñu war a doxee suñu ànd ak moom ngir liggéeyal wéyale liggéeyal sëñ Béthio parce que parce que opinion nationale ak internationale ñoo ñuy déglu bu kenn copier samay wax dama ne ni ñu la war a jàppale ñun taalibe yi ñun jëwri nii du lenn lu dul rafetal gii nga teg sa tànk ñu ànd ci ak yow koo xamante ni Serigne Touba dimbali na la ba nga fas yéene ñëw ànd ak ñoom ci rafetal gi ñu ànd ak yow leneen lu dul loolu bu ñu ko tal man loolu laa wax ba leer na voilà ba tax na man de sant naa Serigne sëñ Sall man de jàpp naa ni li ma sëñ Béthio defal defalu ko benn taalibe barki sëriñ tubaa kuy sama morom dama ko yàq di wax du ma sa morom kuñ naa sama moroom nga man du ma sa morom du sama njàmbaar ndimbalu sëñ Béthio waaye loolee lépp cuun dimbali leen ma ngeen def kook taalibe taalibe laa bëgg doon tey moom laa bëgg doon suba moom laa bëgg doon ginnaaw suba te lu lu dug taalibe bugguma ko dimbali ngeen ba sëñ baajo wax dëgg yàlla yar nu ci ak taalibe kon aal gi ma dugg ba tax ma man damay siyaar waaye waaye gaa yi jóge ci màggal bërki démb songub siyaar loolu loolu du ay pexe loolu àll la ak àll ma dugg sëñ Saal sa rafetal gi nga rafetal waaye màggal gi nii nga ko doxalee nii nga dalalee sunu xel yi looloo man looloo ma saf ci màggal gi looloo waral jotaay bii tey ma ni sama waa daara yi nañ leen jóg ndax taalibe kat amul lu dul di siyaar ab sangam bi ma ko waxee daanaka juróomi fan la ma ñëw seen kër wax leen ko nga nangul ma ko ma ñëw ci daara ji wax ko taalibe ñoom ñëpp ñu jóg. Joriñ Moustapha Ndiaye ñoom ñëpp jóg. sëñ xaarim ñoom maxu gars yi bokk taalibe ñëpp jóg ku ne indi sa dërëm ñii indi seen ñaar dërëm ñii indi seen junni ñii indi seen ñaari junni waaye sëriñ bu matub sëriñ booy ànd ak moom da lay dimbali ba ma ñëwee nga ne ma a ah, sëñ bay jokkat ci berne lañu ñu yar cantub samedi ga digal naa la nga nanga fa berne ma ñëwaat ci gars yi ne leen ah ndigal ñëw na sëñ Sall nee na nañ berne nga boole maag bul jum malaaka ñu jox ko ñaari nag ci ñaari fan togg ay berde te kat foofu damaa bëgg a taxaw tuuti ndax ñun lu ñu sëñ Béthio jàngal mooy cant berde te boobaak léegi ci sa yërmande yaa ngi koy def ci sa ay propre ak benn ci mbokk taalibe yi la ci yi ànd yow ba tax na gars yi jëwriñ yi waa daara mbokk taalibe nañu ànd ak sëñ Saal ci liggéey boobu nañuy berde cant samedi yi bu ñu ko mënee organiser suñu biir sax daara bu jot samedi bu jot benn daara sasu berde yi mën nañ ko ndax dajaloowuñu fii ngir di waxtaan tëgg fecc dem ñibbi li ñuy def diine la sant sëriñ Saaliw la kon nañ ko dimbalee sëriñ bi nga digal ma ko ñaari fan nga dimbali ma ba ma jëf ko man leen man kat ñemewu maa dem siyaari sëñ Sall diggante bi gàtt na te du ma yóbbu addiya gaa yi jóg ku nekk rungu rungu indi dajale indi kër ti kër ba ñu dajale suñuy koppar xaw ma sax lu mu doon dama leen wax ñun dañu ut ab enveloppe rek lu mu doon rek nañ ko ci def barke Serigne Touba dimbali ma. yàlla na sa koy topp jëwrin bi jëwrin Moustapha jaay waaw jëmm ju baax mu mel ni sëñ Sall vous pouvez compter sur nous nous serons des alliés qui ne vous trahiront jamais Soyez rassurés que nous serons des talibés aujourd'hui, demain et éternellement des talibés. lu dul ak talibé ñoruñu soxlawuñu dara li ma ko waxaate woon waaye yow danga dangaa da ngaa neex a man de du ma fi nekk sax di wax sama jaar-jaar ak yéen ndax kon day mel ni ànd gi may ànd ak yéen mbirum historique la du loolu ndax man njabooti sëñ Béthio ñëpp laa am leen del jàmm kenn koo ci tudd rek sëñ Béthio boole na ma moom ma séq ak moom jàmm joo xamante ni war na tax ma ànd ak moom waaye man ab taalibe laa murit laa sëriñ Touba moo ma ñor loolu moo lal ànd wi waa daara ji ñëpp ànd kook man ba tax ne que sant naa bu baax du ma monopole kàddu kàddu kàddu gi waaye tuub naa ko waaw kàddu yu bëri sax tuub naa ko waaye yëg-yëg rek laay waxee waxu ku sopp sa ab sëriñam rek laay waxee waxu taalibe rek laay waxee ndax man dey ñi ma xam war nañ xam nañ ni waruma def leneen lu dul topp bëgg-bëggu sëñ Béthio su ma ko defee du ma gor leneen bu ma ko toppee lu dul bëgg-bëggu sëñ Béthio du ma gor ndax sëñ Béthio damaa dimbali kuy jaay pànk pànk pànk lu ba yegg si jëmal di nga xam ne maa la gën a pànk fukki junni yoon waaye loolu taxumaa jóg